coowal politique li mu ngi tàmbali di yëngal yenn ci këri diine yi nga xam ne rek ñoo nekkee file njabootu ko Serigne Abdou Dieng Doyoly njamono ji nag mer ba fut la ñu def gannaaw ay kàddu yi nga xam ne député bi ñuy wax Abdou Lahad Seck Sadag yëkkati woon na ko ci assemblée national di daal ci ñenn ci njaboot gi ñoom koy jamono ji naqarlu nañu ko bu baax. vidéo boo xam ne jamono yëpp ñu ngi koy seetaan kii ñu wax Laat Seck Sadag def ko defe ko assemblée mu yëkkati kàddu yu day waar yoo xam ne daf ko askanale kër gi. muy kàddu yu xeebaate kàddu yu boddi ci aw xeet kàddu yu dog mbokk jëmale ko ci kër gi muy loo xam ne itam lu metti waa kër gi la metti mbooleem ñi nga xam ne sëriñ Abdou Dia Mbacke Doly jaboote na leen ndax dañoo jàpp ne foofee mu taxaw ci assemblée di yëkkati ay kàddu ña mu seqal wàllu politique la mu seq ak ñoom ci wàllu politique mën naa yem ci seen diggante ak ñam ko seqal nekk nag ay kàddu yu ñagas yoo xam ne nag jamono ji nee nañ lu ni mel bëggatuñu ko dégg. jëmmi sëñ Abdou Dia yi ñuy toog fi ci këram gi tey di ci def ay déclaration ngir moom dafa ñoo jaral lu ne dafa jaral nañu suñu bakkan ba ko ba comme ni ko sëñ mm, Fallou Roxee wax sëñ Abdou Dia sëñ Tuubaa ko jur xaqan ndax soxna si nga xam ne moom la sëñ Tuubaa njëkk a dëkkoo mu soxna ja Touré bi ko bi ci sëñ Tuubaa amee soxna Fat Ja da ko yeewee jox ko sëñ Mbàkke soxna mu am ci sëñ Abdou Dia ñu bokk wenn waajur kon kooku ku bëgg génn ci yëf yi boo amee sa règlement de comme ni ko sëñ Fallu Roqee waxee da ngay dem nga réglé ko ci beneen anam bu dul ah, anamu bokk aku xeet kooku dootuñ ko nangooti loolu daal dañ koy xamal Abdoulaye sa Sadaga ak ñeneen ñu mel ni moom ñu koy bëgg a def ak ñi ko defoon ba noppi mayetuñ ko nit ak koo mën a doon ak foo mën a dëkk ci àdduna boo ko defatee da da daañu jëflante yow loolu moom dañ leen koy xamal bu ko defee muy loo xam ne dafa bëgg a xew ñun nag dañ ñoo kenn mësuñoo dégg ci yu mel nii bu doon mbirum politique ba fii ba déwén comme ni ko suñu Fallou wax duñ ci wax. ñoom nag ña ngay xam ne ne bu fekkee ne am nañu jafe-jafe ñu lijjante ko seen biir ndax wàllu ko politique googee bu ñu ko dugal ci wàllu këru diine yi. bu fekkoon ne wàllu politique képp la duñu mos a dégg ñu yëkkati suñu kàddu ci wàllu googu ndax yi fi yi fi xew bari na yi fi jaar bari na te mësuñoo yëkkati suñu kàddu jëmale ko ci wàllu googu sëriñ Abdou Diambacké di li bu jabootee kenn xamul nu mu toll ñii ay jàngalekati alxuraan lañ ñii fañ nekk ña nga fa nekk tënku ci ndigal nekk ci lañ war a nekk kenn mësu leen a dégg ci dara kon bu fekkee ne kenn ku nekk am nga ab cër boo am ci moom ñoom Sëñ Abdu ñoo ñi ak ñoom Sëñ Seex sunu borom dogal ci ñoom def leen ay député ñu nekk ci assemblée nekkal fa askan wi loolu sunu borom moo leen ko jagleel waaye ña nga xam ne dañuy seq ak ñoom nag ci wàllu politique la ñuy jëflante ñoom ci seen jëmmi bopp mën naa yem ci seen jëmm kese bu boobaa duñ ci dégg kenn. ci janook taskatu xibaar yi nga xam ne ñi ngi ko doon amal ci la ñu artoo député bi di Abdou sekk Seck Sadaga di ko xamal ne jëf ju ni mel moom bu ko amalatee dinañ ko diggaale ak moom. dafa am lu xew loo xam ne dafa bëgg a jàll ba jéggi dayoo loolu dootuñ ko nangooti kenn di ko wax parce que fa mu ko waxee moo moo tax ñu ñëw bu doon jëmmam la ko waxee kese wala moo ko ci ay yeneen du ñu amal njariñ mais da ko waxee ci milieu boo xam ne ñëpp ko bokk mooy assemblée nationale di député moom kon moom même particulière personne kii ci réew mi ak nit la koo xam ne ku ñuy déglu la. bokk ci pouvoir bi d'abord kon léegi nag xam ne euh, loolu dutuñ ko may dutuñ ko may keneen loolu comme Sëñ Fall waxoon na lépp ci yëpp dañuy tënk rek jot li kàddu yi rek xamal leen ne daal loolu rek tax ñuy daje dajewuñ ngir politique dajewuñ ngir xuloo dajewuñ ngir xeex dañuy woote ci njëkk ak teraanga ku ko mënut nag bu ëllëg ki sibir loo defati loo ca loo ca fekk nga xam ne yaa tooñ sa bopp xeetu coow yooyu ak jafe-jafe yooyu nga xam ne léeg-léeg dañu koy faral di nemmeeku yenn ci këri diine yeeg politique bi bi njaboot gi di xam ne li la day du fi lu njëkk waaye tamit naqar lu baax patt pataaral gi nga xam ne ñenn ci njaboot amee nañ ko ci mbir mi lee dajeeg taskatu xibaar yi la nag ñi ngi ko doon amal ci kër sëriñ Abdou Dia Diolé gi jàkkaarloog jumaay Tuubaa gi ci teewaayu kilifa yu bari